fi mu fi muy teg suñu borom saa su nekk delluwaayam sëñ Modou njaay day dem al day dem ci alxuraan bala maa dem ci élément bi ndax njabootu Cheikh Sidi Muxtaar gépp ñu ngi yónnee ay bataaxal moom sëñ Xaadim Diop ñoom ñëpp ñu ngi yónnee ay bataaxal waaye balaa maa ñëw ci xaside gi damaa bëgg sëñ sëñ moodu nga nga commentéral ma foofu sëñ Ablaye bi mu ubbee xaside gi rek mënoon na ca yam ndax bari na ñuy jàng ik fi nii xamuñu ni mi ngi ci biir xam nga tax ma ne boo gisee ci trasu xasida gi xasida sëñ bi li tax nga war cee dugg mooy day am leneen lum dëxañ ci biir day am lu ko yàlla di may loo xam ne da koy wutal lay lay taay maanaam su doon ab bu mu def wala bayit bu sànni rek nit ñi mën nañ ko bañ a fonk waaye du ko wutal xasida fanweeri bayit mbaa téeméeri bayit mbaa nangam lekk làq may googu ci biir xasida googu léegi boo taxoo xasida googu xam nga am na ku ñu wax ne mës na ñëw kenn ci njabootu sëñ bi ni ko damaa bëgg nga wax ma xasida gi ëpp doole ma koy jàng mu ne ko damaa bëgg nga wax ma gi gën a néew doole ma koy ko kooko na tekk daan ne ko kon digtal ma ci benn mu ne ko goo ci takkool baax na loolu mooy bindul lu néew doole léegi dafa am ñetti bayit yum tegale antal mudillu ladi zallat li izzatihi al insu wal jinnu wa saytaanu yallaahu anta samihu alladi naajaytuhu zamanan naajaytuhu zamanan wa bil masarraati lii qad jutta yallaahu anta al basiru lasi lii xaada jumlatama li tarta dunya wa oxra ka yàllaaw gis nga ñetti yi sëñ Moodu baytu actualité la naa jeytuhu zamanan actualité la li tarta dunya wa actualité la ndax moment ba mu koy wax yoon wi dox na ci diggante bi ma bëgg nga saraal ma yooyu bàyyi seex fi ne <laughs> waaye di nga ma bàyyi tey <laughs> eh, sëñ Moodu foofu laa bëgg nga ñëw fa balaa muy ñëw <laughs> waaye jërëjëf sëñ Ablaye wax dëgg yàlla yi fi toog di déglu rek day dàq ci jataay bi ndax mbokk yi ni mu doon yëkkatee wax dëgg yàlla te muy la xam nga jàng yaa nga xasida li ci am solo dëgg-dëgg li ci jiitu mooy mooy baat yi wér leer te loolu moo feeñ ci njàng mi yàlla na suñu borom dollee dollee dëgëral amiin amiin amiin amiin kaddu gu neex door a ñëw wallaay wallaay wallaay kaddu lu mu neex neex bu baat yi wérul mhm. yow mi xam li muy wax mhm. buñ koy wax day mel dañ lay dañ lay jàpp daam sëñ Ibrahima mhm. xam na li may wax day juxutaan waaw ah, mhm. arab mhm. maanaam bu ñu bu ñuy wax ay ay ay bayti xasida ki koy jàng lu baat ba neex neex bu yàq baat bi yow mi xam li muy wax yow da ngay mel ak ku ñuy jam ay puso te dootoo sawar sax te lay wax loolu lu mat a bàyyi xel la ci suñu mbokk jàngkat yi mooy wax ka ni ko sëñ bi bindee baat bi wér mhm. te loolu daa feeñ ci njàng bi lool moo tax mhm. déglu gi da doon dàq loolu mhm, sëñ bi gis nga ko noonu bayit wu daaneel rek mu jox la ci bind boo xam ne da ngay ci gën a yéemal sëriñ bi yàlla na suñu borom doole jàppale. amiin amiin amiin sëñ Moussa Saliou Sow mu ngi yónnee message léegi nee na. ku baax nuyu baax nee na ma sëñ Ablaye moom dafa maa neex ndax daa xam li muy wax. a baax. wallaay wallaay ma atul muhaadirin ñëpp ñëpp. wallaay wallaay waaw waaw mm. man ma muhaadirin. waaw ma nuyu sëñ Jibril Sène sama xarit boobu. sëñ Jibril waaw. waaw sëñ nit ku reconnaissant la. Mm-hmm, mm-hmm. xam nga nit sëñ Maodo. Mm-hmm. su ngeen séqee teraanga mu defal la ko te forcé woo ko dangay fexe téye loolu garde ko sëñ Mudu Musaa dafa waxoon ne àddina gënante mhm. wuñ fi lu ëpp ma mbëgg la te yëgoo ma mhm. waaw sëñ Jibril Seen nit ku baax la ku baax la wallaay xam ku baax la ko reconnaissant la koo xam ne loo ko defal du ko xeeb ku baax la tu yàlla ko yàlla sàmm muy waxtaankat di borom xam-xam waaw tubaarkàlla mañ maxamad xaadirin bismillah lool mhm. waaye sëñ Ibrahima kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax <coughs> xam nga sëñ eh, sëñ Hamidun sëñ Ibrahima bi muy wax ci ci xasida gi mi ngi wax ne jëmmi xasida gi dafa bari xasida yoo xam ne bari na ci loo xam ne sëñ bi du ko indi muy tarjumaan ja lu jëkk la wala lu mujj la mm-hmm. Mm-hmm. ndax loolu ay secret ay mbóot la yoo xam ne am na ci yoo xam ne diggante ak boromam képp la mm-hmm. subhaanahu wa taala am na ci yoo xam ne maanaam li mu doon wax léegi bañ nun nu tayeel ci jaam yàlla lan nu yàlla sant dana tax mu di ko dëxëñ ko di ko nëbb xam nga dañoo xam ne maanaam tarjumaani gis bu am ñuy wax ne bu feeñoon hmm. benn sëriñ kenn dutu ko topp topp ci gannaaw ne nga bu satara dëgg la kon am na tax ñu nëbb ko hmm. waaye boo demee ci eh, eh, xasida gi hmm. eh, sëñ sëñ Abdourahman moom Daaru Monti borom xam-xam la bind na ko ku bind la ci loxoom la bind na xasida gi man gii monsieur moo ko bind indi na ci tuuti na ci njëlbeenu tarjumaan ji loo xam ne day dëggal li sëñ Ibrahima wax mooy dëxëñ gi sëñ bi dëxëñ loolu dafa wax ne bismillahi rahmaani rahim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa taqabal minni hadihi alqasidata xabulan yataajabu minhu al awaluna wal axiruna xabulan yataajabu minhu al awaluna wal axiruna bila afatin wala kadri minni wala minni aban amin doo dugg ci bismillahi fii nil akdaar yàlla mm-hmm. sama borom bi mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi da ko wax nag nga xam ne lépp lu muy tàmbalee ci tàmbali ci boromam julli ci yonent bi sallallahu mm-hmm. ngi la ñaan nga gii mi ba nga def waaye nangu goo xam ne ña jiitu ak ñi ñëwaat jamono ba at addunay tukki dañ koy yéem. Mhm. kon kon mooy mooy mooy lëm ci dëxiñ. Mhm. waaw mooy lëm ci dëxiñ loola leen yéem. am te denc ña jiitu woon te bu ca génnee kenn nag. Mhm. al awwalun la wax. waaye wal aaxiroon ñii ñëwaat jamono it. gannaawam. ñëpp nañu ci nangu gi nga ma nangul xasida gi. turam yëpp rafet. doo jël mukk tur wax ne annaafi muy aj jariñ. gën te rafet ak daar kiy lore. waaw dëgg la suñu borom noonu la mel. annaafiu mhm. kii jariñe gën te rafet mukk ak daaru kii lore kon walillaahi l-asmaa'ul husnaa fad'uuhu bihaa mhm. tur wu ci nekk nag dafa am buntu la ci suñu borom boo xam ne la nga cay sàkku jaaraka ci la gën a gaawee mhm. booy sàkku njariñ an an annaafiu ngay jëfandikoo booy booy jañ lor abdaar yàlla miy lore ndax képp ko addur wa nafa min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani mm-hmm. loolu waxoon naar ba ca ca gànnaar maxtaar daymaani mm-hmm. nee na ko lor ak njariñ ci mm-hmm. yàlla képp lay jóge jógewul ci nit ku ñuul jógewul ci nit ku weex kon booy booy jañ lor ci yàlla nga koy jañ jaara ko ci tur wi tudd abdaar euh, bay di nga doon wax léegi antal muzillu antal muzillu baal mu bay baal mu bay bi zalla li izzati al insu wal jinnu wa cheytaanu yàlla sëñ laa wax na ko léegi al muzil mooy koo xam ne lépp daa torox fi moom moom mooy ki màgg moise la moo tax lu ñëw fi moom da nga maanaam da ngay toog da ngay nërmeelu da daa tiim lépp nga xam ne ñëpp dañoo toroxlu fi moom muy al ins lépp koo xam ne maanaam nit nga hmm. sa bopp jëm kaw seytaan ki jëm suuf yaa génnu ci loolu dëgg la mu nga ngay jinne noonu hmm. seytaane la ci aju lépp seytaane fexeem rëy na lool suñu boroom ku lott la ku lompañ la mhm. gis nga ca xasatu benn sëñ Iblaay mhm. ba seytaane defee ay pexeem jañ jay waa waa waa Xuraysh bañ bañ song yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. di wax ne maa di dimbali ba malayka yi ñëwee naka sa ala aqibayhi la alxuraan ba muy ba muy daw man waq yaa ngay daal daal ca gannaaw muy samp ak xerew naan inni axaafullaah rabbal alamin damaa ragal yàlla mi borom bindee kon daa ragal yàlla kon fu mu dégg tur yàlla samp na aw xelam aussi ñu seytaane bi laa xilaafi zikru ilaahil maaneen moo xam ne suñu tubaab wala ñu jàngaloon kaso bi nga mën a tëjee seytaane ci lu sikk sàkka mooy tudd yàlla saa su tudd yàlla seytaan samp samp na xelam dëgg la kon wa ca tege nga ne anta samihu alladi naajaytuhu samanan zamanan mooy li nga doon wax léegi da ko yàgga ñaan yàgg koo wax ne ko nangam nangam laa bëgg defal ma nangam fegal ma nangam na Touba mel nangam tàmbale ci man nga bu la neexee man nga tàmbale ci xasi dëgg mat lul fauséyi la mu ko ci doon ñaan ca Touba mhm. booba dimagul ci dëkk bi mhm. na dëkk bi mel ni te booba mbaarom ngeer ko tiim mhm. lu ne mu ne mu ne ko na fi am bokk na ci rek li li mooy mooy symbole bi fa taxaw mu jumaa ma ngi mi ngi ñaan boromam naan ko na nga jéggal ñii tabax sama tabax gi ak ñi leen di dimbali mm-hmm. waxfar li man banaw binaa ahar rafian mm-hmm. waxfar li man bi bihi jami wala jami man aanahum ala binaa ihlazi bi fadlika atala mm-hmm. na nga jéggal ñii tabax tabax gi ak ñi leen di ak ñi leen di jox ay ndigal nga xam ne dana yëkkati ko ba ne séeg ñi ñëpp seen ko te mhm. booba mbaarum ngeer ko tiim mhm. mais gis nga ni mu def waaw fi'lul maadi la indi banaw banaw nga xam da ko teg bët dafa teg bët ba xam ne banaw te ko ah, xam nga xam nga xam nga maag bi moom moom luñ luñ def ba noppi la mm. mhm. kon loolu da nga ciy dugal ne yow laa doon ñaan bu yàgg zamanan diirub jamono bu yàgg may lay ñaan mu ne lii wabil masaraat wabil masaraat li jutta yàlla jutta yàlla kon gannaaw gannaaw ku tabe nga ba xam nga al juudu tabe mm-hmm. moo tax mu jël eh, eh, baatu juudu mm-hmm. tëgg ca fenlu jutta mm-hmm. kon fenlu maa de bi nga doon wax ñëwaat na léegi bil masaraati lu ko bégloo mooy la mu doon ñaan lépp suñu borom teg na ko ci loxo bil masaraati dëgg la mu teg ca antal bathiru alladi lii xaada jumlatam badian mais badian samawati wal ardi ki fent asamaani juróom-ñaari suufu juróom-ñaar yi ak li ci seen biir li nga xam yaa ko basirul lazi anta al basir kay kii nga xam ne moom dara ump ko lépp mi ngi mi ngi wawa samiul basir la yàlla laysa ka mislihi shay'un wawa mhm. samiul basir borom nee na dara minut ne man mhm. te kuy dégg laa kuy gis laa gisub yàlla nag déggub yàlla bokkut sunub gis mbaa sunub dégg mhm. dégg nga lixtar la la mboole lang ma wom la ma doon sàkku ci yow nga wommatal ma ko tànnal ma ko ndax suñu borom dafa sëriñ bi dafa waxoon ne alxayru fii maxtaarahul muxtaaru mhm. laa fi lazi nufusukum taxtaaru mhm. yiw wa dëgg-dëgg mooy li muxtaar kiñ tànn mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu tànn mooy mooy la tànn mhm. mooy la gën mu wax suñ borom moom sëriñ bi ne ko mboolem la ma doon tànn lépp nga te yaa ma ko tànnal yàlla woo ma tal nga ma ko tey ndax gis aji gis nga te gis nga lépp moo tax la ma doon léegi ba muy wax ne woo ma tal nga ma ko booba jumaay Tuubaa taxawagul déedéet jumaay Tuubaa taxawut Tuubaa melagul nii mu mel. Hmm. dëkk <laughs> maanaam maanaam këram yi mu am ci biir àdduna bi yi melagul masaalik gii taxawagul te lépp ca la tàbbi sëriñ bi ma maanaam dafa mel daa sëpp jamonoom. Mhm. daa sëpp jamonoom. maanaam suñ borom da ko wan jamonoom jëpp ba ba ba gis ko xam nga dafa wax ne xawlii wa fi'lii wa i'tiqaadii surifat lillaahi bil quraani wa hiya insarafat koo xam ne say wax sa pas-pas say jëf lépp da nga ko wëlbati jëme ko yàlla jaare ko ci alxuraan moo tax lu lu mu am jomb ko lu mu am sëriñ Tuubaa lu mu am jomb ndax léppam da ko jox borom subhaanahu wa taala jaar ko ci alxuraan jaar ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko doxale diggante ak borom mm, subhaanahu wa taala moo tax mu ne lillahi bil qur'aani waxyéen sarafat mm. waxaaniyal baaxir tiyaaban kartidaat waxaadanii ilal jinaani bi widaat mm-hmm. ci biir xasida googu ci ci boo boo bi muy jeexal tarjumaan ji. Mhm. xam maa la wax bu yëgul naan la. Mhm. tarjumaan yi xasida yi nañ koy yër léeg-léeg. Mhm. sëñ bi na ci dëxëñ loo xam ne maanaam boo ko yërut doo xam li li xasida gi wund. xam nga foofu dafa waxoon nafaante ni bi dikri xaaliqal wara. nafaani bi dikri. xaaliqul wara. wara ma sa'yi wa kulli nawira. yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo bind bindéef yëpp hmm. moo ma jariñ ci ci ci alxuraan bi hmm. dëkkri hmm. waaye waram ma san yee moo defar sama jëf waaw waram ma san yee waaye wa kulli nawira sama lépp leeral na ko ca ca biir lay wax ne wajal xarakaat wa sakanaat yi wa anfaas yi wa enraad yi wa agraad anfaa taqwa wa axsana taqwa wa awsala ilay fi qasidi hadi athmaana kulli ma baaxu anni ndeysaan na def moom yàlla dafa wax ne wajaan ala dafa wax ne daa def kon hmm. fi almaa de ngoog yàlla moo def samay yëngutu man ak sama dal samay nokki samay xemmemteef lépp luy yàllaa ko def muy am fa taqwa hmm. gën jaar ragal njëriñee ragale yàlla hmm. sama lépp noonu la mel waaye wa ahsana lu ragal yàlla ku lu nit mën a ragal ragal yàlla gën ko rafetle ko mënu ak Sëñ ci rafet ak rafetam maanaam ak ragal yàlla ni nga ko rafetlee waaw xam nga xam nga foofu sa sañ Modou li ci doy waar mooy li nga wax ñu ñu ma moo ta yër mooy nañuy xool li sëriñ bi defar mhm. euh, bi mu jógee ku ne xam ne suñu boroom jaam ñëpp déggaluñ ko mhm. waaye beddiwul jaam ñëpp déedéet gis nga sax da doon avertiser yonent bi alayhi salaatu salaam mhm. ci ñoom ah yaa ngi dem ci Firawna de ku beew la de waaye nag fa xawlaa lahu xawlan layyinan loo xam Seydina Moussa Moussa ba muy dem ci Firawna daf ko ne bu bew na de innahu taxaa mhm. waaye nag fa xulaa mhm. xaw xawlan lay te lim am yàllaa ko jox ba tax mu bew waaye kii yàllaa ko yónni joxaat koy droit am mhm. ay xaqam yàlla lu jàmm bi dëng dëng dëng dëng dëng dëng lu te ah, naa yenee mi droit nag sëñ Tuubaa ne eh, nasihun bila xifin alimun wa allamun waaye kalaaman yu layin sëñ Tuubaa nag jëm taxawaay boobu la am ci ouverture ba tax ñëpp ñëw léegi soo bëggee xebet sëriñ bi wala nga bëgg wax safaan ba côté boobu ñu tax te si ko fa ngay xoole wallaahi wallaahi surtout loolu góor foofa rek ngay xoole daal di dut baaraam mhm. te fekk am na koo xam ne bi muy bi sëñ bi mu ngoog te foofa sëñ am leen dëgguma la waaye gis ngeen li nga wax nii eh, yaa ngi doon tudd sànq benn vidéo bi bi circulé gaa yi ñu tàmbale ne ci def seen commentaire yooyu ñu tàmb ñu baaxoo def rek mm-hmm. yooyu mm-hmm. moom noonu wax nu nuy jëf rek waaye li wér mooy maanaam sëriñ bi teel naa wax waa jamono boppam nee na suñ boroom maanaam bi ma liggéeyal sama borom ba mu gërëm ma ba seytaane yërundu liggéey bi xam ni mënu koo yàq uh-huh. dane naa naa ko gàkkal uh-huh. ni mu ana koy gàkkale mooy damay xool koo xam ne melu na mu war a mel ma ne ko demal tuddoo kee uh-huh.